mais maa ngi leen di fay. waaw ñu ngi leen koy delloo bu wér a wér di nuyu àdduna bi yëpp di leen asalaamaaleykum wa rahmatulah. lan tey sa teewaay fii. waaw mais dara balañ suñu suñu doom la doom laay wax sax suñu doom la xam nga et puis ñoo bokk dëkkuwaay bi waaw comme ni ma koy waxee chaque jour rek sama combat yi ci bëri presque mën naa ne dama koy préparé si ñoom ñoom it bu ñu ko amee dama leen di jàppale xam nga mooy loolu quoi. mais Naar keroog li nga bëree yàgg Bib Diop lan la conseil la wala. non pas ay conseil ak affaire yooyu noonu man loolu laa waroon def. Bib Diop loolu laa war a moom parce que li ñuy yaakaar ak li nekk bokul quoi waaw mais arbitre moo yàq suma làmb quoi. arbitre moo yàq lamb si nag. làmb ji quoi non moo yàq làmb ji. dafa mel ni yéen arbitre yi commencé nañ leen sonal parce que da ngeen di bëre arbitre di leen sëf naa leen bëri leen bëri leen loolu da leen di perturbé wala. non loolu day perturbé ku mu mën day day pone day day loolu li mo lay lamb làmb dañoo def ay saaku. mais man dama xamul saako yi ñu def pour lan la pour man saako yi maanaam da nga ciy yegg ñu la yaa ngi dégg sax da ngay jàppante sax ci ci bëre da ngay jàppante yéen ñaar da ngeen di jàppante tuuti ñu arrêté combat bi jox kenn ki avertissement mais yooyu yëpp xam nga pour lan la ko xam nga pour dagg xaalis yu nit ñi xam nga pour yàq lamb te maanaam lamb ak ni nga koy préparé doo ñëw rek di ko man man bàyyi naa loolu dootuma ñëwati di saax saaxee lamb déedéet parce que dama doon ñëw di di compter waale ci ñoom xam nga doo bëgg loolu ko doo bëgg ay combat bu nii rek ay combat bu kii par avertissement ak affaire yooyu da nga ci bëgg def jom ba bu daanu de am nga xam yaa daan wala affaire yooyu noonu mais jour boobu noonu jour boobu noonu maam foofu mënu ma fa woon daanu parce que li combat boobu dama ko bu baax a baax. parce que man seet naa la nga ne combat xale bi xale la quoi Bib Diop xale la te combat xale yow bi nga jëlee sa bopp day métti. non loolu parce que xam nga la moo tax dafa am ci yu ma jógee te yi ma jógee yëpp kenn mënu ma ci. man xam naa ne su ma entraîné rek pare combat bu ma entraîné pare du benn booy bu ma ci mën kenn ñëpp laa wax nag ñoom ñëpp kenn waaw. dafa mel ni keroog loolu nga bëree parce da nga am si loo jógee woon. waaw bi yoon ngeen ne booy bi laay dajal du ma profité sama combat moo tax nga ñëw tey. si noonu la demee xam nga li ma lay sax ba pare xam nga moom mooy li ma la wax rek arbitrage bi war nañ ko xoolaat quoi man dama yaakaar ne nag temps bi ñuy joxe ñoom xam nañ ne temps boobu dafa ndaw ay 5 minutes 5 minutes dafa ndaw quoi parfois man loolu laa yaakaar ne moom moo tax ñuy jàpp combat yi di ko yàkkamti noonu quoi di bëgg mu gaaw a jeex. waay léegi lan ngay conseillé sa moromu mbër yi nga xamante ne aussi dañ leen di perturbé par conseil naan leen bëreel lii bëreel li te jour boobu noonu bëre nga si xel bu dal. non sport yëpp xel bu dal moo koy def maa ngi leen koy conseillé ñoom ñëpp bu benn arbitre ñëw di leen profité ba ñu profité seen combat non non arbitre yi profité yi ñuy profité gars yi dañ ko war a bàyyi loolu bokkul ci làmb. mais keroog gis nañ bañ joxee Bib Diop. li nga xamante ne moo di victoire bi yow da nga da nga sawar fi nga nekk da nga sawar parce que gis naa la. yaa ngi firi. parce que xam la moo tax dafa daan ci une minute. dafa ni ma dama lay ndax maa la gën a nekk xale maa la ëpp doole maa la ëpp xaalis. mais fan la ko teg. mën ko barki yàqu pour Cheikh Sidiye doomu laal. parce que la mu yaakaar ak la nekk sa fait diamétralement opposé bu dee bëri la maa leen ko dàq milliard fois man xam naa loolu maa leen ko dàq. waaw mu entraîné rek pare man ma entraîné pare benn booy laa lax ci booy kenn du ma ci daal. lan lañ mën a xaar si naaru Sokaar. man maa fi ma nekkoon rek nekk maa ngi continué sumay entraînement. fan nga teg sa tànk. déggoo li ma la wax xanaa man maa fi pour làmb damay bëre ku mën a doon damay bëre loolu moom ma fi bàyyi. lan ngay sa mbër mi nga xam ne moo war a <laughs> non Fallou xam na li ko war booy bu ndaw la demagul fenn trois combats la am xaw ma quatre li yëpp topp ko ci mbooloo xam nga war na xam am na yoo xamante ne nii war waroo xaar sax ñu ngi koy conseillé quoi xam nga ma ne sax parce que dafa am ñu bëri yoo xamante ne nii ñenn ñi liñ ko bëgg te mënuñ koo am parce que li yombul quoi xam nga boo ko boo ci bokkee ci ñi la ko yàlla séddee rek loolu da nga koy téye te ni nga koy téye xam nga ko respecté say entraînement a a yeew xam moom la sport bëgg l'islam li mu bëgg moom la sport bëgg mu nekk ci loolu la am loo xamante ni dama ko ciy conseillé affaire yi beneen bi ci ko wax ci waa CNG affaire Balla Gaye bi keroog quoi xam nit ku nekk nit nga nit day day kii maanaam comme li ñuy wax rek xol bu feesee dafa fees mën naa génne lu nekk yaa ngi dégg sax mais li muy jooy ñun mbër yëpp moom moom moom la ñuy jooy. mais li tax kon yéen waxu leen ko avant Balla Gaye leen ko avant man amul sama benn interview boo xamante ne dama koy wax ba pare wax ci waa CNG amul ah. amul. seen dafa mel ni seen li mu leen dagg dafa bëri de. non même pas même pas bu nekkul dagg xam nga li ma lay seet jamono ji dañ ko toll parce que dafa am ñoo xamante ne dañ fee nekk xam nga muy nguur bu bees dafa am lu ñu wootee moom mooy jubal ak lan dëggal leeral. merci beaucoup kon CNG dañ ko war a jubbanti li ko war a jubbantee moom mooy la fay dem war ñun maanaam askan bi war naa xam fan la jëm xam nga li ma lay war nañ ko. defar ba nga xamante ne nii dañ naan budget bi moo duggoon maanaam budget bi ci làmb la dugg yaa ngi déggee sax ñuy xool ñu maanaam ñuy xool loolu fu mu jaar yaa ngi déggee sax pare teg si li ñuy dagge mbër yi dafa ëpp benn ñaareel bi moom mooy man gisuma ci benn texte boo xamante ni dañu ko bind ni boo tëbee mbir 1 million lañ lay dagg boo taalee sondel 1 million lañ lay dagg. Ama Baldé nee na sondel lañ ko daggee 1 million Balla Gaye Gaye nee na tëb bi mu tëb moom la ñu daggee 1 million. mais est ce du Balla wax ji wax moo garaaw wax ji mooy waa CNG ay sàcc lañ quoi est ce que wax jooju moo garaaw. waaw déggoo li ma la wax xanaa nee naa la doomu aadama mu ne doomu aadama la. am na foo xamante ne nii da nga fay toll nit nekk na foo xamante ne boo fa tolloo dafa am leneen luy nekkaat ci yow lu bokkul ak nit boobu noonu ñaa ngi déggee sa mais nag dafa naa ko wa nga jël sama alal moog sàcce yem rek ñoo yem rek c'est que wax ji da nga ko rafetal quoi maanaam comme ñun sénégalais lañ da ngeen rafetal ay wax ak yooyu mais yow yaa jël sama alal mooy dama ngaa sàcc dafa mel ni mbër yëpp si kaaw caatu yaraax bi si la mbër yëpp yeewu mais mais bàyyi ma ñoon si ñoom bàyyi ma ñoon si ñoom ak yeneen mbër yeneen booy yi nag moom moom nga ciy gën a yërëm xam nga ma ne sax booy yi ngay gën a yërëm te ñooñu dañ leen war a bàyyi xel ci làmb xale yi nekk ci suuf dañ leen bàyyi xel ci làmb xam nga di ñuy remercier bu baax a baax président Gris Bordeaux parce que moom taxawaay bi mu war a am moom mi koy am quoi mi ngi kaas mi ngi def li mu war a def sincèrement parlé xam nga mais dañoo bëgg ay moromam génn jàppale ko ci xeex bi yee est-ce que du ngeen jéem a trouver xool ñu ngeen mais eh, waa CNG ñoom waruñu xaar sax pour ñuy xool ñun ñu leen di woo ñun pour ñu waxtaan ñoom ñoo war a woo seen i njaboot ñun njabootu CNG lañ ñoom ñoo ñu war a woo ba waxtaan a ñun te xam ne mbër mënoo koo génne ci làmb promoteur mënoo koo génne ci làmb ñooñu foog ñu am place biir CNG yaa ngi dégg sax ba pare ñu xool man waxuma pour ñu jël mbër sax def ko mu nekk président CNG ku mës a jaar ci làmb wala déet mais nañ seet koo xamante ne nii maanaam maanaam ku xam limi ku xam xam milieu bi ñu def ko ko. bien noonu la demee. sa kàddu gu mujj la waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp xama nga sant waa Pikine ñëpp waa xam sa cosaan maa leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar bu baax mu mu ko ci quoi di nuyu waa Saint-Louis di nuyu waa Gadaye xam nga waaw di nuyu ñëpp daal di leen bu baax a baax a a baax. merci beaucoup di wax naan xoolal affaire amul arrière de na booy yëpp ñëw ñu bëre man nekkuma fii pour benn mag mais booy yi na ñëpp ñëw ñu bëre mooy loolu jaay.